di ñaanal bu baax seex Muhammadul Muntaqa suñu boom yàggal ko fi lool ba lim yéene lislaam mu àggale ko fu kawe njortam dellu santa suñu borom subhanahu wa taala bim nu may ñu ci jataay bi fas yéene àndaate génn ci sunu émission bi nga xam ne mooy yóbbalu soxna yi di émission zaadu nisaa il muslimaati li nasihatil muminina wal muminaati doon jataayu fàttalante waaye jataayu bu laayante biir mu mel ni sunu jataay bi nga xam ne moo paase noo ngi woon ak ci téereb Sëriñ Tuubaa nga xam ne moom la doon dénk soxna Penda Jóob wasi wasiyatu soxna Penda Jóob doon wasiya boo xam ne bu ama am solo la ñeel jigéen ñi waaye bu ama am solo la ñeel góor ñi ndax ndénkaan yi nga xam ne moom la ci dénk soxna Penda Jóob dénkaan la yoo xam ne mboolem jullit ñu góor ñi ak mboolem jullit ñu jigéen ñi ñoom ñëpp mën nañ cee jariñu ndax lim koy digal ak lim koy tere mboolem góor wala jigéen ko ca teggi sa tànk ci ñàkk jëfe lam lam koy lam lam koy tere waaye teg sa tànk jëfe lam koy digal insha allah taala mën nga am muccuk àddina ak muccuk àllaaxira loolu moo taxan bind bi passé noo ngi taxawoon ci alayki bi sabri wa taqwa ki fi sirri wal jahri fa yaghfiru laki baatu muñ boobu nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa dénkoon soxna Penda Jóob mooy jataay bi nga xam ne moo passé ñu taxawoon ci muñ digg digg muñ mooy lan ak njariñ yi nga xam ne moo nekk ci muñ ndax muñ ni nga xamee ne noonu la alquran karim waxe eh, ci ñi nga xam ne ñooy muñkat yi ci bu suñu borom tabaraka wa taala ci ñoom seen dogal moo xam daf leen nattu ci alal wala mu nattu leen ci seen bakkan wala ci seen doom wala ci seen meññet wala mu uh, façon nattu bu leen alquran bu leen suñu borom subhanahu wa taala nattu ci ak ni yonent bi sa yonent bi ne asabru nisful imaan yi genn ngëm digg digg mooy ngëm mooy muñ muñ nag waxoon nañ ne muñu amut yemukaay diggante muñu jaam bi ak boroomam subhanahu wa taala amul ab yemukaay ndax suñ borom mi nga xam ne moo sàkk jaam bi sañ koo teg lu ko neex sañ koo teggil lu ko neex la suñ di teg jaam bi rek la ca war jaam ba mooy mu gàddu natt boobee muñ ko comme ni Sëriñ Tuubaa waxee fa haysuma yeji u xataa u rabbi famin lahu doona idraarin xalbi dellu waxaat ne wa min kamalihi isa taraahu kitmaanuhu kaman afaullah bokk na ci matum muñ digg digg digg digg mooy say bu dogal bu sunu Boroom subhanahu wa taala dikkee dal ci sa kaw nga muñ ko mel ni yaa ngi nekk ci sa digg digg digg jàmm yaa ngi nekk ci digg digg tawféex kon loolu bokk na ci euh, muñ ci dogal yi nga xam ne moom la suñu borom di teg jàmm bi waxoon na ne muñkat ñi nga xam ne doo nekk ci àddina di muñ itam ci nattu diggante nattu yi leen suñu borom di teg waaye itam di muñ ci ñàkka doon seen moroom waaye di muñ ci ñàkka tooñ seen boroom waaye itam di muñ ci jaamu yàlla waaye di muñ ci topp yàlla comme ni nga xam ne loolu lépp dafa am muñ ni ko Sëriñ Tuubaa waxe sabru an sabru ala sabru fii wax nañ ne muñkat yooyu ëllëg yowmal xiyaam bu ñu demee yow yowmal xiyaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne na suñ boroom dana am kersaak sampal leen ay balaas ñuy peese seeni jëf comme ni nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa waxee ahlul bala laysa lahum mizaanu wa laysa yunsharu lahum diiwaan kon ñooñu suñu borom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na suñu borom dana am kersa ak sampal leen ay balaas ñuy fees seen jëf wala ñu leen di fang di leen jëmee ci bis ba nga xam ne foofu leen dina attee ngir muñ gi nga xam ne moom la muñoon seen digganteeg seen borom waaye seen digganteeg seen boroom baña tooñ seen borom bañ a tooñ seen borom seen kattan. waaye muñ ci jaamu yàlla waaye muñ ci mooy yàlla la ko Sëriñ Tuubaa waxe moom ñooñu la wax yi nga xam ne ëllëg yow ma xiyaam des leen peeseer seen jëf des leen jëmi ci bisu pinc ba moom muñkat yooyee mu mel ni muñ moom leen ci mën a wax bari na lool waaye xëy na dañ ciy taxalu foofu ci jataay bii passé boobu ci taxalu dikkaat ci beneen tomb bi nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa dénkoon soxna Penda Jóob te mooy eh, taqwallah lan mooy dëgg digg taqwallah ndax bu ne ko alayki bi sabri lam ci teg mooy wa taqwa rabbiki kon digg digg ana lan mooy taqwa man la ci ab jaam di jariñoo ci taqwa taqwallah digg digg taqwallah mooy lan suñ wa taala wax na ci suratul ahzab yaa ayyuha allazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadidan يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما suñu boroom wax na ci alquran karim ci suratul ahzab yéen ñi nga xam yéen a gëm yàlla na ngeen ragal yàlla te ngeen di wax wax ju jub mooy na ngeen di wax wax ju yiw comme ni alquran ni nga xamee ne noonu la euh, alquran karim waxee na ngeen ragal na ngeen ragal yàlla tey wax wax ju jib bu ko defee suñ boom subhanahu wa taala yéwénal seeni mbir jéggal leen seeni bàkkaar koo ci xam ne topp na yàlla ci jëfe lam ko digal waaye moytandiku lam ko tere topp yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko digal waaye mot na ko lam koy tere dana kookee de faxat dafa sa fawzan asima kookee de ëllëg bu deme ëllëg yawmal xiyaam mooy ki texe texe gu réere gu réere suñ boroom subhanahu wax ca suuratu talaax wa man yattaqillaha yaj'al lahu maxraja wa yarsuqhu min xaysu la yaxtasibu koo xam ne ragal ne yàlla suñu borom dana ko defal ci mboolem bunt bu mu fëgg rek suñu borom defal ko ci ak ubbeeku yaj'al lahu maxrajan wa yarzuqhu min haysu laa yahtasib suñu borom di ko wërsëgal fu mu ko fooge ak fu mu ko foogewu koo xam ne ragal na suñu borom subhanahu wa taala ci di jëfe kemtalaay kàttanam li ko suñu borom diggal waaye di moytandiku kemtalaay kàttanam lim ko tere nee na suñu borom tabaraka wa dana ko defal al maxraja al maxraja nag al maxraja nag lu ama am solo la ci ab jaam ne suñ boom daa ko defal maxrajam mboolem bépp bu mboolem bépp bunt bu mu fëgg mboolem jubluwaay bu mu jublu rek suñ boom ko ci ak jàppandal ne na ba pare da ci yem suñ boom dana ko wërsëgal mu ko fooge ak mu ko foogewut dana ko wërsëgal wërsëg nag yaatu na du caagin wërsëg moom mooy alal rek waaye ak ragal yàlla wërsëg la ak bëgg yàlla wërsëg la xam yàlla wërsëg la yaakaar yàlla wërsëg la jaamu yàlla jaamu yàlla bu sell suñ ko ko suñ boom jagleel suñ boom uh, loolu wërsëg la waaye moytandiku bàkkaar yi sa kemtulaal kàttan wërsëg la waaye itam di jëfe ndigale sa kemtulaal kàttan wërsëg la waaye itam boo juumee ba def bàkkaar nga xam ne yow mi yaa def bàkkaar bi da ngaa tooñ kat te bàkkaar bi xaj matatik doomu aadama la ci dugal dana nga dellu tuub dellu ci suñu borom subhanahu wa taala loolu lépp day dugg ci wërsëg kon wa man yattaqillaha yaj'al lahu maxrajan wa yarsuqu min xaysu la yaxtasib jële nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama xadis boo xam ne cheykhaani ñoo ko nettali muy al imaamul buxaari yu ak ko ci abi hurayrata radiallahu anhu yàlla yàlla ko wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa abu abi hurayrata dafa masa laaj yonent bi sallallahu ne ko yaa rasulullah man akrama naas xiila atqa atqahum dafa mas a laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow ki yàlla yónni ana kan moo gën a tedd ci nit ñi mooy leen xanaa ki gën a ragal suñu borom subhanahu wa taala inna akramakum inda allahi atqaakum ki gën a tedd fa yéen fa suñu wa taala mooy ki nga xam ne mooy ki ko gën a ragal a Cheikhul Xadim inna akram akramul ibadi inda allahi aktharuhum taqwa taqwa bil istibah akramul ibadi inda allahi aktharuhum taqwa bil istibah nee na ki gën a ki ëpple ak tedd nga ci yéen mooy ki gën a ragal suñu boom subhanahu wa taala ci lu amul benn lënt lënt am na dénkaane boo xam ne Sëriñ Tuubaa ridwanullahi alayhi moo ko doon dénk sëriñ ndaama abdurahman maa ngi koy wax ci biir fa qultu usika bi wa nafsi bi taqwallahi alazim li annahu afdalu min kulli shay maa ngi lay di dénk sama bopp ci ragal yàlla subhanahu wa ngir naka ragal yàlla suñu borom subhanahu wa taala mooy li ci mboolem àddina ak alaxira afdalu kulli shayin mu ne ko boo demee ci téere bu tuddee tudde Zuhurul Ashkar euh, li Seyxina Zidil Muxtaar nee na yàlla yàlla gërëm ko nee na maa ngi wax ci biir téere inna al fawaida ala al aqaida naka digg digg njariñ mi ngi ci digg digg pas-pas yi ku la ëpp pas-pas ku la gën a sell pas-pas ku la gën a mat pas-pas sa diggante ak suñu borom subhanahu wa taala ak sa diggante li nga xam ne moom la suñu borom tabaaraka taala doxale sa diggante ak moom nee na kooku mooy ki la ëpp njëriñ innal fawaida ala al aqaidi kon nit ñi ñi ngi ci seen pas-pas ku la gën a dëgër pas-pas ku la gën a wér pas ku la gën a sell pas-pas kooku mooy ki la mooy ki la mooy ki la ki la jiitu mooy ki jiitu ne nag na nga xam ne ragal yàlla subhanahu wa taala mooy bépp mooy bépp xekma mooy bépp xekma rek mooy ragal yàlla te it moo boole mbooleem yiw yi moo boole mbooleem xéewal yi teg ko ci ne ko fa man aradal ilma fal yattaqillah koo xam ne da nga bëgg suñu borom subhanahu wa taala defal la ab xam-xam na nga ragal yàlla koo xam ne da nga bëgg suñu borom defal la xam-xam boo xam ne defalu ko ñëpp nee na nga ragal yàlla wattaqullah wa yuallimukumullah su ngeen ragalee suñ boom subhanahu wa taala suñ boom xamal leen xam-xam boo xam ne xamalu ko ñëpp ne ko man arada risqa fal yattaqillah koo xam ne da nga bëgg wërsëg da nga ragal yàlla wërsëg nag waxal na ko léegi wërsëg yaatu na lool waaye wa man arada najata fal yattaqillah koo xam ne daga nga bëgg mucc àddina ak alaxira ci bon bon yi ak ñawteef yi ak musiba yi ak balaa yi naka ragal yàlla ba man araada an yakuna akrama naas fal yattaqillah koo xam ne da nga bëgg doon ci da nga bëgg doon ki nga xam ne mooy gën ci nit nga ragal yàlla ndax inna akramakum inda allahi atqaakum kon boolem yooyu yëpp dafa ragal ci dafa dafa daje ci ragal yàlla xam-xam bu sell mi ngi ci ragal yàlla wërsëg wu yaatu lool te lew mi ngi ci ragal yàlla eh, mucc àddina ak alaxira mi ngi ci ragal yàlla doon ki nga xam ne mooy ki gën a tedd ci nit ñi bokk ci ki ci ki gën a tedd ci nit ñi yaa ngi koy amee ci ragal suñu boom subhanahu wa taala sëriñ bi del ne ko su fekkee ne da bëgg a xam lan mooy dégg dégg ragal yàlla ma la ko na ko ragal yàlla nag mooy nin koy firee mooy jëfi ndigal suñu borom subhanahu wa taala waaye moytandiku li nga xam ne moom la tere waxul nag nuur ci wuma nag ragal ragal ragal mbugalum suñu borom subhanahu wa taala nuur ci def bàkkaar ragal mbugalum suñu borom tabaraka wa taala ba pare ci def bàkkaar xañ na def bàkkaar mënta ñàkk waaye nag nuur ci sa dund gépp nga nar koo jeexal ci def bàkkaar comme ni nga xam ne noonu la comme ñenn ñi nga xam ñoo desee di njorte ña nga xam ne dañoo ragal dañoo dañoo ña nga xam ne iblis moo leen war yal na yàlla rëbb ko moom iblis ndax da nga gis ñoom ñuy wax ne dama ragal lëndëmu bàmmeel dama ragal xataayu bàmmeel dama ragal mbugalum sawara dama ragal tam fitnaay sawara euh, ak ak tari ak ak tarak sukaraat bool teeg nag nuur ci def bàkkaar yu mag yi seen dund gépp ñu jeexal ko ci def bàkkaar yu mag yi lu ci mel ni xool jàmbur yu jigéen ak naka wax ak di wax lu dëgg ak di jëw ak bari ay caaxaan lool boo leen waxee ne leen ngeen di def wala li ngeen di wax dafa xaraam ñoo la ah lii nag moom kenn mënu ko bàyyi ndax boo leen nit ñi ñoom ñoo koy jëf wala nit ñi ñi ëpp ci nit ñi dañuy dañuy wax dëgg dañuy eh, jëw dañuy ngor ci ay caaxaan nee na te boo fàngoon nit ñëpp nag jëbaleen sawara moom bu ca bëgg a bokk dañuy wax ne ah jëmu nit ñëpp jëm sawara moom war tax mu bokk ci boo nekku bàkkaar yi ngay def dafa xaraam mooy leen mbooleem nit ñi ñoo koy def te bokk noonu mbooleem nit ñi ñi ngi dem sawara kaay bokk ci ñoom bu ca bëgg bokk loolu mooy la xawfa bala illahi wa asabihi maa shirarin ala ala zanbi كما يظنه بعض السفهاء الذين قرهم إبليس لعنه لعن الله ترى بعضهم يقولون إني خائف من ظلمة القبر وضيفه وعذاب النار وفتنة وفتنتها وعلم الموت وسكراته مع إصراري على الكبائر كالنسر إلى الأجنبية والكذب والغيبة وكثرة الفضول فإن قلت له هذا حرام qaala laka haza laa yaqdiru axadun an yatrukahu li anna jamiica nnaasi yafcalu lahu maca annahu law xusira nnaasu ila nnaari laa yasurruhu an yajtamica macahum fi casaabi fi lcasaabi kon daal digg-digg ragal yàlla subhaanahu wa taala mooy jëfe ndigal suñu borom mboolem lu suñu borom digal digle nga jëfe ca lang ca mën a lang ca a jëfe sa kemplaat kàttan dem ca ba jeex ànd kook ak sellal ànd kook pas-pas ak yéene waaye moytandiku mboolem li si ngoom tabaaraka wa taala di tere nga moytandiku ko sa kemplaat kàttan boo juumee ba tarxiis ba def ci lu na tere tam xam ne ab jàmm juum waaye tam nga tuub jéggulu dellu si ngoom subhanahu wa taala te fexeel sa kémtlayel kattan nga bàyyi li suñu borom tabaraka taala tere nee na mooy digg digg digg ragal yàlla kon xam ne dañuy taxawal foofu insha allahu taala bii di ñëw buntikoo ci ci beneen bi ñu delluwaat kon loolu ñaareel bu tomb la ci li nga xam ne Sëriñ Tuubaa daf koo dénkan soxna Penda Diop ci alayki bi sabri wa taqwa rabbiki kon loolu mooy digg digg ragal yàlla tabaraka إن شاء الله تعالى بالفصل مسعار ومن كراماته بعض الكتاب لا نيل توقف ضم الماء مطرار أما ابن حفان أي عثمان سيدنا فعالوا في بالتفضيل إسعار حاس السهادة والنورين ثم له من الرسول قصوصات وأسرار فات النبي إلى فجر يروم له ردا من الله سططيل كبار sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey